pour ñëw teew fii ci place bi d'abord gis nga pancarte yi li mu wax nee na que hold up bi la ñuy bañ Sénégal aussi dafa war a moom boppam ba pare continuer di doxal euh, son calendrier électoral euh, dafa am benn boroom xam-xam bu ñuy wax Ahmad Shawqi un grand littéraire euh, égyptien dafa wax ne sur une terre noire mm, benn xeer bu ñuul sànqalañ bu ñuul nekk ca mu ne yàlla day gis foofu la ñuy tey jii le président Macky Sall mu comprendre que les Sénégalais dans leur écrasante majorité ou bien tous les Sénégalais même dañu bëgg moom le 2 avril incha allahu taala mu dem jox réew mi le président que les Sénégalais choisiront à travers les urnes loolu c'est capital tey jii maintenant li am solo. peuple bi dajee fii tey jii c'est n'est pas un peuple en colère mais c'est un peuple intelligent nous sommes une grande nation cette grande nation aujourd'hui veut que la situation non seulement elle s'apaise mais dañu bëgg aussi réellement que appel bi ñu koy lancé tey jii mu dégg ko intelligemment pour au-delà même de ce dialogue qu'il a appelé pour que ñu dem vers une élection le plus rapidement possible maintenant su fekkee conseil constitutionnel da ko delloo bal bi ne na ngeen waxtaan seen biir ngir ñu samp bisu élection yi li ëpp solo tey ji que moom mu teggi xalaat bi mu am tey ji pour toog ci bopp réew bi parce que loolu jeex na lu ñu koy ñaan cet appel solennel que nous lui lançons que nous lui adressons tout le peuple sénégalais debout mooy nekk moom jeexal na il a fait douze bàyyi nañ ko ak suñu réew doxal na li mu mënoon te li mu mënoon méngoowul ak li war a doxal suñu réew méngoowul si ni économie àdduna doxee moo tax tey ñu décider génn fii ñi fi nekk ñëpp ce sont des citoyens amul xaaj ak seen génn taxaw wax ko dans une marché silencieuse ne ko lii waratul xew jaxase bi nga xamante ne am na ci début processus yi ba léegi moom ak ay ñoñom ñoo nekk ci cat bi mel ni dañu bëggoon suñu agsee ci cat bi ni ñu annuler élection bi mais heureusement que les sénégalais sont restés debout di xaar di dox di wax ak moom ngir li ñu bëgg suñu réew mu am le 2 avril ñu am passation moom ak président bu bees bi ñu tàmbale tabax Sénégal bi nga xamante ne moom la ñu bëggee incha allahu taala. bu ñu demee tuuti ci ginnaaw amoon na moment yi nga xam ne nag euh, les candidats spoliés wala recalés. Euh, ça dépend seen kii bi ni ngeen ko tuddee mooy euh, seen kuréel bi. waxoon nañu maanaam ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguur gi wax nañu ni. boo gisee président de la république génn def décret daa fekk ni yéen a sakku woon à que mu wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci liggéey conseil constitutionnel ñu bëri loolu la njàppoon euh, comme prétexte que président nu mu génnee ni yéen la doon euh, maanaam euh, tafontuloo man j'avais dit clairement ñi ngi may dégg ah, maa ngi wax ci ay médias waxoon naa clairement que lii Macky Sall nar a def ak jàkkaarloo les candidats spoliés piège la waxoon naa ko te ñi may wax ñëpp ñi ngi fi piège la parce que xam nañu Macky Sall c'est comme un boulanger euh, daf lay rouler dans la farine li mu lay kàddoom démb ak kaddoom tey dafa jaxasoo le père de la nation bi mu war a doon matewu ko ñaareel ba aussi c'est un homme qui s'excite il ne se contrôle pas il a peur de d'affronter euh, la sincérité des Sénégalais moo tax tey jii mooy wax ne intelligentment maa ngi lancer un appel à tous les citoyens sénégalais Euh, lii ñu lii moom mu bëgg tey jii mooy peut-être que l'armée dugg en jeu ñun ñoo war a nekk intelligent ñun les sénégalais les citoyens sénégalais fexe ba wan ne nous sommes un peuple responsable nous some des dirigeants responsables pour ñu kon ne perpétuer la marche de la démocratie sénégalaise beneen bi mooy mbooloo bi ko wër ak moom na ñu bàyyi taafontoo ay ñiikat dañoo ñëw ne nañu régler yàgg na ay problème di am ci élection mais taxul ñu arrêté ko nit mun naa jooytu nekk li xew neexuma mais taxul ñu arrêté élection bu mu jaar foofu pour mu bëgg toog ci bopp réew mi beneen bi on lui prête aujourd'hui de vouloir encore pousser les élections pour deux ans na xam ne même même même benn benn minute sénégalais yi duñ ko ko may ce que nous demandons mooy que mu dem que le président soit fâché qu'il soit en colère contre ceux-là qui ne sont pas d'accord pour mu toog ça ne nous dérange pas li am solo mooy ñu ngi ñaan suñu borom di ñaan sénégalais ñu taxaw taxawaay bu mat sëkk ba le 2 incha allahu taala ñu xam ne kii mooy le prochain président de la République ñu def passation et on tourne la page et on avance l'alternance est produite en 2000 Diouf ne voulait pas partir mais finalement il est parti en 2012 Wade ne voulait pas partir aussi gis nañu dem na ba ci biir sax ne may leen ma deux ans ma eggale samay projet ñu ne non non ak Wade li mu représenté ci Afrique li mu représenté Sénégal dañ ko doon mënul nekk en 2024, ce que nous n'avons pas donné à, Macky, à Abdoulaye Wade, ce que nous n'avons pas donné à Abdou Diouf, nous n'allons pas donner, nous n'allons pas le donner au président Macky Sall, qu'il qu le sache. temps bi dafa gaaw le temps n'attend pas moo tax 12 ans yi mel ni lu jàll ci ñoom lu mel ni caas bu tegee ci safara jeex na léegi na may une autre génération d'autres leaders ñu ñëw taxaw indi d'autres techniques d'autres inventivités pour Sénégal bi nga xamante ne au lieu mu nekk une émergence mu nekk un une puissance économique de renommée mondiale c'est possible nous en avons les moyens nous avons la matière grise nous avons les ressources qu'il faut il faut simplement que nos institutions soient solides et nous avancer vers ce développement comme ça a été réalisé aux Émirats arabes unis aux États-Unis en Allemagne et soo seetloo bu baax ces grands hommes yi nga xamante ñoo marqué àdduna ku mel ne Lincoln même bi ñu demander pour changer la constitution américaine pour mu toogaat dafa ne jamais de la vie loolu moo am solo les hommes passent les institutions demeurent et nous appelons le président Macky Sall à la retenue à l'intelligence de partir au bon moment et le bon moment c'est le 2 avril incha allahu taala. après prétexte bi nga xam ne nag moom moo indiwoon frein ci li nga xam ne nag moom mooy élection présidentielle euh, ci le cas des enquêtes parlementaires bi nga xam ne moom la assemblée nationale évoqué woon est-ce que le cas Rose Wardini du doon euh, benn cas parce que gis nañu ni entre les deux tours aussi wax nañu ni bu fekkee ne am na benn candidat bi nga xam ne moom démissionné wul ñaan ñu ko njekk mu démissionné euh, bu ñu demee ba nar kaa forcé yéeni parce que déjà dafa am des mailles avec la justice est-ce que moom kaam euh, du indi beneen problème par rapport ak processus man daal li ma li may li may conseillé mooy ñu seppi lu ñuul ci soow bi rapidement te ñu avancé ñun élection li ñu bëgg rapidement yaa ngi may dégg élection li ñu bëgg rapidement te il est possible de réaliser cette élection te beneen affaire daf ci amaa maa ngi dégg sax ñuy wax ne waa élection suñ ko defee mais deuxième tour day jéggi mais deuxième tour amu fa parce que l'opposition va gagner cette élection xaw ma kan la ciy doon mais euh, peuple sénégalais li mu woote tey ji mooy aller vers une alternance comme ça a été le cas en 2000 comme ça a été le cas en 2012 donc bu ci bu ñu sonn mathématique bu ñu mën a def gymnastique bu ñu mën a def mënut a tax Benno Bokk Yaakaar gagné élection yi duggal ci foyer yi man je suis allé partout dans le Sénégal foo jaar li ñu lay wax ne mooy doyal nañu sëkk ci Macky Sall la tax ñu doyal nag ñun kenn ku ne xam na ko gis nañu justice bi nu mu nërmeeloo 13 mois laa def de prison bi ma génnee ci kaso bi mais amul jugement amul dara loolu jaay doole la woon ñu muñ ko am na ñeneen ñoo xam ne génn nañu démb barki démb jaay leen doole yàq seen i famille yàq seen i santé ñoom ñëpp tey ji ñu ngi fii am nañu lu leen metti parce que ki ñu yaakaaroon mooy bàyyu askan bi dafa démissionné donc ñun li ñu bëgg nañu teggi li ñuul ci soo bi te avancé élection lu ñu bëgg moo ñu indi fii incha allahu taala. sant di la gërëm bu baax a baax sëñ bi.